cinquantaine commune yu nekk ci biir Dakar di jógal jaaykat yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci marché ya doon li nga xam ne ni plateforme bu ëmb association bu secteur informel ñaawlu na ko bu baax. il faut ñu arrêter déguerpissement yi parce que sax mun na jur lu ne parce que koo tey ku taxaw lii c'est moyen de subsistance li muy jëlee dundam même bu dee ci mbedd mi la c'est des priorités. moo ne secteur informel bi lu bëre lay jur ci koom waaye tamit di jox ndaw yu bare bërëb bu ñuy xëyee. lii day wane ni que secteur informel bi lu am solo la ci économie réew mi. loole nag war a tax rek ñu war ko jox place bu am solo économie bu nekkoon ab nit secteur informel mooy nekk xol bi. ñoom acteur yi nga xam ne ni ñoo ne ci secteur informel bi di ñaan ci autorités yi ngir ñu boole leen ci waxtaan yi balaa ñoo jël benn dogal. waaw bu ñuy def les grands travaux de l'État là ngay defar benn gare. mais loolu da nga xam ne gare c'est des c'est des lieux qui attirent des gens da nga ko ciy sóoraale Petersen tey jii buñ sóoraale woon lieu de vente mais yàlla souterraine am na am na am na ci kaw lépp mënoon nañ ko ci sóoraale ba benn problème du am ñëpp continuer ñu bokk jàngoro ak dëkk yu bare yu nekk ci dëndub Afrique ba tax na OHADA bëgg leen jox ay jumtukaay yi tax ba ñu mën a formaliser wu. dañ ko war a formaliser ba mu mën a rek concurrencer ak yeneen secteurs yi yeneen réew yi nga xamante ne dañoo développé yépp ci secteur informel lañ jaar te nag jamono ji ñu jàpp ko former ko ba tey gii ñu mën a nekk ay réew yu émergents. Aujourd'hui on parle des émergents. gannaaw ay opération de déguerpissement bi nga xam ne ni amal nañ ko ci atum 2007 ci nguurum Abdoulaye Wade acteurs yi bootu woon ci ay association tey jii association yooyu yëpp boole seen loxo ngir taxaw temb ba saa su ne bu nguur gi bëggee amal ay déguerpissement ñu mën cee waxtaan ak ñoom d'abord